sëñ Musaa Ka ni yaa jëkk a jébbale sa xol fekkoon nga gaañay xor-xoral ñu lay taxal ñu setal yaa xàll ngir mii nuy doxe yaa xam sëriñ bi yaa xarañ daawoo weranteekub sëriñ bàjjo bi yaa bari njariñ waana wi yàgg ngaa naxe am ngay dërëm am ay ngërëm jël say dërëm jënday ngërëm loo mës a am tàbbal këram ay junni faal nga daa joxe jox nga ko addiyey giléem yu sufi ngur du sufi koom soldaar sa yaa joxe sa doom fàllilu faal ànd ak texe sa ndaw dadaa dem ba Gabon maa fa dem foofu dafa sori di yenu ay saako rong di dugg ca gaal yoo yori boŋ doo denc lëf ba muy waxee jaaraama nday Seynabou Ndiaye la soxna jaara yoroon di jaay yaa ko mosal waa Njara Ndiaye saw ngañ loj na yaa tax ngan googu maam Seex Anta ko ganale sëñ Tuubaa keroog sëñ Gaaw Anta parfum moo gën a seer ci parfon yi ñu ne ko sikki mu commandé ci ay bërigo ñu ne ko mbàkke nooy def mu ne nañ ma ko tuural ci bàq bi suuf si sax war naa yëg ni sëñ Tuubaa ñibbisi na di ray di ray ba tër nit maam Ousmane Camara saa yu ma demee Daaru Salaam siyaar ay sëtëm suñ gaawaan daal ne ray naa lu ne ba mu des nit maam naan Camara yuuxu fudd tëdd ci kanamam ne nan ma nan ma rey ndawa dem ci sëñ Tuubaa ne ko ma ngay bëgg a rey nit ndax yow te sëñ gaawaan mënta kaata sax yow xol bu sedd taxoon sëñ Tuubaa daal ne borom saam rus na la demal faaka bi sëñ borom saama ci téye kooku bañ taggee jéngi borom saam ne ko sa mag gi nee na luy doy doy na bañ daggee jëng yi maam Seex Anta da koo rafaatale borom saam moom la sëñ Moussa naan fukki nag ak ñaar ci bis bu nekk ànd ak giléem ak fukki bëy lay sàkk ba muy xëy bisix ne tey ma rendi nit kuy taxaw joxtan ya ndax nu màndi daam ne ko jaaraamaa mu jàppaab jaam jébbal magam sëriñ mar borom saam ñu toog ba yàgg jamonoy sëñ Ablaat sëñ Ablaat ñëw fay ko waa Ndakaaru génération bi fekkewuñ sëñ Muntaxa toog ba yàgg nag ne maay doonaat sëñ Tuubaa dugg Ndakaar lil Muntaxa wajjahtu fii Ndakaar zikran bihi xakkute bal makaaru mais kan la fiy fekk eh gana siwut Maam Moor de gana siwut Omar de gana siwut Moodu de gana siwut Masamba de Ahmadou Bamba Fay la nekkoon teeruma ma ñëw Dakar le 27 waaye gars yi nan la cantaakoon ni di def waa bis ba bis ba bis ba les cantaakoon la yéen yéen yéen yéen joorin fa laa ko du ma la fi téye fa laa ko du ma la fi téye sëñ Saliou yaay gor yaa baax nii nga melek joorin noonu nga melek Seex Basum sëñ Abdou Xaadir yaa ko fay fekk noonu la la sëñ Muntaxa jàppe xam nga lu ko may denc madinatu salaam bëgg-bëggam la waaye bu fekkoon day dund sëñ Muntaxa ne ko sa kër googu ca Medinatu Salaam na ma fekk Tuuba Medinatu Salaam dootu ko gis keroog jaaxle nga pression bi dal sa kaw ñii naan la nii ñii naan la naa waaye keroog laa xam ne sëñ Tuuba dimbali na nga ne li sëñ Bamba bëgg laay def Seex Beeto danaa ko yenu yóbbu Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullah jëwriñ sëñ Xaadim nii ngeen def mooy yoon lam bi toppe upp ngeen ko maa ngi siyaar baax Pape Moussa sama mag soxnaam dabañ ndeysaan Mbakke ñu ngi jéggalu ci lu nu xam lu nu xamoon bëggoon sa mag ju baax ja sëñ Moustapha Basiru gërëm na la yoon yoon yaa bari bi jaxee bi abi ay yaa moom la Sénégal suñu taxaay yaa moom la Sénégal Allah fi bëggoon mu gaaw alislam ci àdduna yow na fi am ya

saalikum jinaan bi ayna ya qurbi abi jaxe yeeg juma yóbbu tuddee waaw bàyyi suñu cër ko ni sant leen ndax di la ñaan la nga yàgg duniya ah di la ñaan la nga yàgg duniya ndax di la ñaan la nga yàgg borom ndigal sant ndigal sant ko borom ndigal sant ndax ak jërëjëf Mbacke yaa jaajëf sant la war naa ko ci takun yaa taalibe ndigal ci la nii na te taalibe bi ko jëfee ci lu nga ci sa boo jëfewul ak kuréel bi tey jii boo jëfewul ndigal li tey jii muntaxa digal bi ci yees yi bi gën yees yi moom la nu boole la sëriñ muntaxa ko waxutoon sax ñoo ngi ci yow mi dëgg mi day ne di jur na doomi bi bu lay neen yàgg na war yaay doomi sëriñ moom bi dem moom sëriñ bi